ceerno wi ɓe kaalino ɗo haala makko guilaw arani nena wax nañ fi sa wax fekk ñowugo yegse goo o wi addani ɓe haalde noon haala makko ko golle makko ɗe o golli ɗo nena lu tax ñu wax ay mbiram fi waxtane ko mooy taxawaay ak jëf yi nga xam ne jëfe na ko fi weltanade mo heen e yettande mo heen allah becci moom ak santal ko yalla e yettande mo allah ko allah ɓeydanimo ko ak santal ko yalla cilli ko yalla yokkuli o wi so dañii ko dañi ko ɗum hawnaaki nena moom monsieur le ministre mi su amee lu mu am li nena loolu de warul nekk luy jaaxal wala luy yéem kenn déedéet o wii sabu allah subhanahu wa taala o wii omo woni e wallude jiyaaɗo makko ɗoon ɗo oon jiyaaɗo ene woni e wallude jiyaaɓe allah neena moom yallah subhanahu wa taala neena dina nekk di dimbale jaamam jaamam bi nga xam ne dafa taxaw ay jaamam di leen jàppale di leen dimbale o wi kala ballowo jiyaɓe allah yo andu ko allah o wallata nena kepp koye dimbale allah wallanmo nena kepp ko xamne day dimbale jaamu yalla yi na xamne yalla dina ko dimbale mom tamit ɗum waɗi noon ceerno wi eɓe nduwonomo no moƴƴi ceerno nena monsieur le ministre ñu ngi lay ñaanal bu baax o wii aan e délégation mo ngarduɗaa o fof ɗum noon koye ɗemngal dental ngal fof neena yow ak mboolem délégation bi nga anndal maire yi nga anndal ak conseil ak yëpp mboolem délégation bi mi ngi leen di ñaanal yéen ñëpp o wii kamɓe e wonɓe e dow maɓɓe haa yettii mawɗo leydi ndi yen ak ñi leen féete kaw seen supérieur ba mu egg ci njiitu réew mi ceerno wi ko duwa ko foof noon yo allah jaabo ɗum nene lépp lin fi ñaan yalna ko yalla nangu eyi ceerno wi hankadi en mbaɗat duwawo tan saabu juumɓe ɓe tampi seeɗa en tampani ni nena ceerno nena dañuy jublu ci ñaan def ñaan bi ndax nena jataay bi yaggna te gudduna te nit ñi commencé naño sonn ceerno en mbi ɓe kaalino ɗum to arwande wonde ɓe jiiɗa jonde nde juuta nene waxnañu ko tenjal ben ne bugguñu ren jataay bi yagg so geeƴe yoni tan juule so gee jote rek ñu julli gee so gaynama tan duwe suñu noppe ci julli gee rek ñu ñaan kono noon wonko alhaali jaɓata waye nag mbir bu nekk ak nu muy doxee am na loo xam ne tamit mbir du ko nangu te àddina moo ko nanguwul yi tamit ne wonnoo ɗuum ko moƴƴere meere mooftii heen nee na naka fekkoon lii yiw kese moo ci ëmb ko ngonden ɗoo ko nee na liñ fi toog ak liñ fi nekk ngonɗen tan ko e nder weluye allah nee na ci biir ngërëmal yàlla rekk lañu nekk ngonɗen tan ne kadi koye rewde allah neena dañoo nekk rek di jaamu yàlla allah woni kadi koye rokkude en tan te yàlla dafa nekk rek di ñu may di ñu may rek di ñu may o wii so wonaa nano wayaa nii en keppataano en kaaɓata neena su fekkente ne du mbiru adduna moo de moo ni demee ak mbir mi nu mu doxee neena duñu yàkkamti mukk te duñu xaddi mukk oh, wii kala do neɗɗo ene wona daña neena fépp foo xam ne nit ki def dina fa nekk di am yi daa ummaade e oo nokku neena bëggul mukk jóge ci place boobu oh, wii saka noon ɗo ngonataa nañaa allah neena rawatina nag place wala béréb boo xam ne da nga fay amee yàlla ndañu raakadi heen nelaado allah salallahu alayhi wa sallam nga amee ci tamit yonent bi salallahu alayhi wa sallam o wii ko ngaal dañal noon ndañeten ɗo nee na may boobu nag la ñuy am fii incha allahu o wii ko ɗum de njoor si ɗen to allah neena loolu de moy suñu njorto ci yàlla ceerno wii jooni heddii tan ko timmitinde golle ɗe neena lu des léegi mooy mottali liggéey bi silkeeji ɗi mbaɗanooma defoon nañu xat muyi teemedere e capanɗe joyi e joyi silke alqur'ana waɗaama neena téeméer ak juróom fukk ak juróom ci xatmu alquran def nañ ko ci ay kaamil istighfar o ko ujunnaaje temedde ɗiɗi nani istighfar bi am nañ ci ñaari téeméeri junni o wi qul huwa llahu o hono suratul ikhlas o nam o wi hasbunallahu o kañum ne dañanoma ujunnaaje temedere e nogas e nayyi nee na hasbunallahu wa nicmal wakil bi am nañ ci téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent o wi hasbunallahu wa nicmal wakil o dañaa heen ko 124 mille laabi tati maanaam téeméedere e noogaas e nayi ujunere laabi tati ɗum woni ko heɓa nee na hasbunallahu wa nicmal wakil bi 124 mille bi ñetti yoon lañ ko def o wii zafta wiik noon o wii latif o kañum waɗama hen adadu zafta wiik woni am hawiju jeeɗiɗi nena latif bi tamit am nañ ci adadu zafta wiik manam juróom ñaari am hawiyu 16 000 Zaftawi 116 400 87 يا لطيف وي اخلاص اوني ودام اوجن ناج تيمدر نانا اخلاص بي تيمت ديف نان تي تيمير جون تي اخلاص اي اوجن ناج تشبانتاتي وي دوم وي نو كو وديد لابيتاتي نانا نيت يون لنجو بوكون ديف كون هجاني واي خجول E ujunnaaje temedere e de jeeɗiɗi keddiɗi ɗe nene temere junne ak ñaar fukk desi ma sukaaɓe ɓe jokkitoye ɗum nene xale yi dinañ ko mottali yasin e haa woni e def nañ ci ñeen yoon ak par 41 salatul fatihi o ne nena salatul fatihi bi oyi waɗama ujunnaje capanɗe jeegom e salatul fatihi def nañu juroom benn fukki junni ci salatul fatihi lima ohlika bi ixlaas oo ko ujunnaaje téeméer di ɗiɗi nee na bi ñaari téeméeri junni la oyi suratu wazariyaati nee na saar wazariyaati ɗum ne kadi waɗaama laabi capanɗe jeegom moom tam jàng nañ ko juróom benn fukki yoon o yi basmala o nee basmala bi e nogas e nayyi laabi ɗiɗi e basmala waɗama nena cent vingt quatre mille basmala ñaari yon def nañ ko o wi basmala o ko ujunnaje temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e jeetati ɗum woni ko waɗa o wi ko ɗeɗo golle woni ko gollaɗo nena liñi degg fii ci ay lim maanaam ci mboolem xeetu jaamu yàlla yëpp loolu lañ fi def e jawharatul kamali o ne kadi waɗaama ujunere nee na jawharatul kamali tamit def nañ ko junni ceerno wii moƴƴi aha ceerno nee na rafet na o wii ɗii ɗoo duwo wuuji fof nee na ñaan yii yëpp onaa waɗɓe ɓee enen duwanii koye mumen dune ñi nga xam ne ñoo ko def nañ ci ñaanal seeni bopp kese ɓe nduwo ni ko julɓe ɓe fof jullit ñépp lañ ciy ñaanal ɓe nduwo ni kadi ko leydi ndi fof te réew mi yépp lañu ñaanal eɓe mbaɗi ɗum wasila non, faade e ceerno eɓe mbaɗi hadaya mum nena ñu ko def nak wasila ci ceerno def ko sabu kanko woni sababu jonde nde ndax moom moy sabab jataay bii ɗum waɗi noon ene ñaagi yo allah yettin baraji ɗi ruuhu makko kanko e dendangal kanko e dendangal hettuɓe to barzah fof nena ñu ngi ñaan yallah subhanahu wa taala yallah jottali yooli yëpp ruwam moom ceerno radiallahu taala anhu ak mboolem ñu mu nekkandool ca barsax ceerno wii jooni bismillahi eden timmitina duwaaw o nee na bismillahi nañu defaru dañuy nekk di mottali ñaan bi o wii ceerno alpha noon ene jógi ngantu nee na ceerno alpha nag dafa am ngant kono noon omo tawaa ɗoo waay nag fekkee na mbir mi te teew na fi o wi tawaɓe ɗo ɓe ko kanko tawa nena ñufi tew ñi moom lañ fi tewal te ñoom ñoofi tewan ɗo so tawino ko ɗo o wonno nena so fekkente ne fiila nekkon kanko duwantono en moom mooñu ñaanal yewi ñu kono tawde allah ñaawiri ni comme te yalla attene ni mbirmi ko ceerno ahmad baro mo ceerno ahmad boyi naaji duwanto en neena na raham Baro rakam mo ñuy ñaanal bismillah wi ci raham Baro wi be mbatti e juude ma ceerno neena na tegaat nañ lepp ci sa loxo ceerno wi jooni an anniyaaji men enen fof neena na nañu fas yene ñun ñepp yo allah jaban en golle de yalla nañ nangul liggéey bi yo allah jaabuna en duwowuji di fof yallah yalla nangul mbolem ñaani rokka enne kadi wattude ni mo wuuri yallah mayñu ñu def ni teewi ni ne gani dewen o wi wonɓe sababu golle ɗene kadi yo allah ñimnuɓe heen yo allah renduɓe heen nena ñi nga xam ne ñooy nekk sabab ci liggéey bi amal lii taxawooye ko nena ñooñ tam ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla ne yàlla wattu yàlla saxal leen ci lii rokkabe cellal yalla may len wer e balde juutɗe ak fan yu guddu e arsigue diaƴɗo ak warsak bu yaatu e kawral ak juboo yo allah waɗanɓe ɗum waɗana ɗum dendagal juulɗo yalla ne yaala defal loolu defal ko mboolem julliti o wi moni foof e men yo wat fatiha nena kenn ku nekk ci ñun na jang fatiha salatul fatihi salatul fatihi laa bi tati ñetti yoon yaa latiif laa bi jeenay yaa latiif juróom ñeenti yoon yaa salaam laa bi jeenay yaa salaam juróom ñeenti yoon moni foofu noon so gay nii ɗum wone tawnude haajuuji mum nee na ku nekk nag su jàngee li bi noppi na nekk di teewle ay aajom bismillahi آمين